bi ñetti waxtu ci ngoon toftali ñaar fukki simili ak lu tek la néewuk aji dem gi nag doonoon fi jëwrin ji ñu dénk wàllu mbiru diine ji rekk ci nguuruk Abdoulaye Wade ak si file ci sëkk yu Baxiya bu Yoof mbooloo bu takku nag tert ko laata ñu koy jullee gannaaw julli gi nag mbooloo bi daldi ko gunge ci këram gu mujj ngir jébbal ko boromam mu di waxtu nag boo xam ne tiisoon na lool ci naqar gi nga xam ne nag ganasi leen di jéem a indi ay seede ci aji dem gi c'était un père de famille parfait un père de famille exemplaire quelqu'un qui a toujours été là pour sa famille. Il a toujours été là. Je suis un grand monsieur, mais il était toujours avec moi. Et c'était mon ami. On se disait tout. Bamba nous comme ça. Nous sommes ndaxte am na si ñu bëri ñu xamee ne seede nañ sax dafa leen defal di leen fayal seen i location seen i bourse yu demee lépp di ko génn sax si xaalisam di leen ko defal yenn saay di leen dimbali ah tey yàlla tax nga xam ne dañu war a jox seen bourse jotuñu seen bourse mu génn xaalisam di leen ko fayal seen location fekk ñu am ay ay ay ay problème bourse kon donc kooku vraiment euh, ñun ñun ñi nga xam ne ñi ñoo sës si moom rek euh, ñi ñi ko sori sax ñoo ñu ko gën a xam que ñun. mu daan bokkalit di yëngu. indi benn seede bi ci moom ñu jàpp ne Mamadou Bamba njaay ko amoon na yitte la ci la mu doon def. Bamba Ndiaye nag lu ñu mën a retenir si moom bëri na li ma si mën a wax rek mooy nit ku bëriwoon xam la waaye nit mën naa bari xam-xam sax te bañ koo te du ko séddale moo du ko joxe comme ni mu waree mais moom dafa yéwénoon si joxe xam-xam bi ba pare fonk l'islam te fu ñu ko woo ci lislaam pare na pour taxaw pour défendre ko ak lu mu ko mënta jaral loolu nag dafay wane ni rek nitu dëgg la woon nitu pas-pas la woon dañ koy ñaanal nag yal ko yàlla fay lépp lu defoon ci lu baax. dayoom rek weesu na ko ci xam ci courage am njàmbaarte mën a wane li mu gëm te du ci laam-laame ak li nga xamante ne mooy xalaatam gis-gisam nekkoon ko xam ne xamoon nañ ko ci combat yu mag yu diine soxlawoo aajo woon ko mu taxaw ci. waye également les causes les plus nobles muy cause Palestine muy cause yenen yi nga xamantene ni de par le monde di participer ci ay conférences ànd ci ak mom fi ci Sénégal ak euh, dans euh, à l'extérieur. ku ñu xam la ci xam-xam xam-xam bu rafet nag ci ñaari fànn yëpp bu dé ci walu diina da ngay foog ne Bàmba diina rek la jang bu dé ci wàllu euh, nasaraan gi it muy walu tubab bi da ngay foog ne foofu rek la jangé moo tax ak demam hmm, lislaam dana ko yég réew mi dana ko yég adduna dana ko yég ndax dafa amoon yitte ju kawe yitte joo xam ne joxe woon na ko ba mu jeex tàkk ci service doomu aadama yi Bàmba lépp lu mu yég ne eh, doomu aadama nga ca ci luy niroog coono ci luy niroog noteel eh, Bàmba dana sol aw dàllam dox ca wax ca ba nga yëngu. ci kàddu yi ñi leen réewum Sénégal moo ñàkk boroom xam-xam ñoom gis nañu ne sax réew mi yëpp ñoo ko ameel njukkal. ñëpp ko war a delloo njukkal particulièrement nag jullit ñi waaye ku dul jullit war na ko delloo njukkal ndax combat bi mu doon mëne du pour jullit rek du pour lislaam rek pour l'humanité tout entière li ma ko gën a nawee nag mooy euh, ndombo tànk yi mu takk. ak li muy kawe kawe amul mosul am complexe ci défendre diinam Sénégal daf ko war a rendre hommage Afrique rendre ko hommage parce que jotoon na jot ay ay ay fonction yoo xamante ne ni étatique yu am solo waaye également la umma islamique parce que ñu mel ni moom dafa yombul te yombatul waaye ñi ngi ñaan génération bi nga xam ne mooy nekk ak bii ñëw ñu référé wu ci moom di ñu jàngal leen ñu mel noonu bu ko defee flambeau bi du fay. Au-delà de la famille c'est le Sénégal c'est le monde arabe c'est c'est la mouvement islamique donc euh, nous présentons nos condoléances à toute la mouvement islamique au monde politique et à toute sa famille. Mamadou Bamba Ndiaye nag amoon na juróom benn fukki at ak ñett. tey nag dem na bàyyi ginnaaw njabootam ak i wëllëreem yi ñuy firnde ni dootuñ ko fàtte baaba dan